bëgg waaw mais caméraman eh taf leen waay taf leen garab jërëjëf xale yi Sonko am chance gone waaye am am am gaaw dafa sori dafa sori dafa sori reculer

kan moo yor paas bi. ki yor paas proche. nee nañ tali bi rek léegi nee na tali bi rek léegi. Tali bi mi ngi woon vraiment. 2024. ku ko dal Benno yaa ngi dooleel góor jigéen ñi. képp ku ko dal Benno yaa ngi dooleel góor jigéen ñi. képp ku ko dal Benno. képp ku ko dal Benno yaa ngi dooleel góor jigéen ñi. képp ku ko dal Benno yaa ngi dooleel góor jigéen ñi. képp ku ko dal Benno yaa ngi dooleel. képp ku ko dal Benno yaa ngi dooleel góor jigéen ñi. dafa waaye dafa jot kii jël nañ ko yàq bu ne yàlla ji kii la àndal yàlla ko yàq bu ne mais alxuraan yàlla ji ndax feex bu ko kii la àndal dafa ne ba lekk di am mooy alxuraanu karim ma bañ rek naa fekk rek naa fekk mënu koo bëgg mënu koo bëgg naa fekk mënu koo bëgg mënu koo bëgg c'est impossible c'est impossible ma bañ naa fekk leen. waaw gëmu leen nag sëriñ si. mag yi da leen di nax gëmu leen. mag yi day borom maa gëm jigéen. gëmu dara boppam rek la gëm. day borom góor góor jigéen. teewoon ci bi ngeen gëm la gëm. comme ni toog ngeen mu nekk gërëm gi rek la ko defal gërëm. gërëm rek la fi defal. gërëm rek la fi defal.

day dooleel góor jigéen. Macky Sall day dooleel góor jigéen. Macky Sall day dooleel góor jigéen. Macky Sall sonal Sénégal. Yeewu jot na yeewu dafa jot. amul wàllu mbéy mi. jiitu ko bu tànn. xajul jàngoro réew mi établissement Kandahar Mignane bàyyi mu set dafa ko si xam di jaay doole xol màgg ci si kër si. Thank you. réew mi bañ naa dee réew bañ naa dee ne dootuñu fi nangu mu jaar. ah wàcce sa loxo yi eh. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn bañ naa dee réew bañ naa dee ne dootuñu fi nangu mu réew mi bañ naa dootum nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootum nangu doomu jaay réew mi bañ naa dootum nangu réew mi bañ naa ah monsieur Ndiame.

waaye tandrali ñu nga tay ba ñaay xam nga ci nga xamante ne tay bay Sénégal tabaski bi boo leen bulee ko comité ay ñëgë na ay ñëgë boo leen bulee comité ay ñëgë na ko tay Jangan lupa like, share, dan subscribe.